asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokk yi ñuy faral di seetaan ci seen seen bu mag bii di Kër Ndaanaan TV tey nag ñu ñëwaat ci seen beneen émission bu mag bu ñu leen indi mu nekk lasraar lasraar di am ci seen seen bu mag bii di Kër Ndaanaan TV noonu la ñuy parax balaa ñëw luy suñu kilifa suñu invité bu mag bi nga xam ne ni tey moom moo ñëw di ñuy seconté ñu war a waxtaanee xam-xam war a waxtaanee baatin wala waxtaanee jaar-jaaru faydu ndax moom muxaddamu Maulana Cheikh Ibrahim Niass la ñu jógee ko ci weeru gàmm yi nga xam ne nii war na am luñ ci waxtaanee war a waxtaanee ci ñaan yàlla ak li nga xam ne ni moom moo nekk ay tajliyaatam waaye noonu it duñ fa jóg dañuy jaar ni jël oto ziyaare suñ kilifa diine ak suñu kilifa aada yi dem Touba ziyaare sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal yàlla naataange ak wér ak wérle jaar nuyu sëñ Bay si Abdou di ko ñaanal yàlla moom it wér ak wérle ñaanal yàlla sëñ Maay Ñas xalifatul am di ko ñaanal yàlla moom it mu yàgg fi ba naal yi mu naalal baayam yëpp yàlla may ko mu sottal ko waa Njaasaan fii ci Yoff ñu ngi leen di ziare kenn ku ci mënta nekk kilifa diine kilifa aada yi di ziare tamit boroom réew mi ak i ministre am di ziare opposition bi ziare ñi caabi féete ginnaaw ñi nekk ci lali prison yi ñi nekk ci lali hôpitaux yi kenn ku ci mënta nekk rek ñu ngi naan la jabb loxo naan la sa premier numéro bii di lasraar ñëw na di ñaan yàlla naataange ndax lépp loo xam ne nii solution la moo tax a kër gi nga xam ne nekk kër Ndaanaan TV tey nag ci émission bi ñu dalal ku mag ndaanaan lu ñëpp xam mu doon kilifa diine nekk mu xadam Mawlana Cheikh Ibrahim muy Abdou Aziz di kii nga xamante ni moo nekk taalibe sëñ Maay euh, Aline Cissé dekk kilifa gu baax gu kawe tey mu dikkal ñu ñoo da waxtaaneek moom ci xeetu may lasraar waaye lu jiitu loolu nag dañuy waxtaan ak moom ci faydu waxtaan ak moom ci jaar jaaru faydu waxtaan ak moom ci jaar jaaro Cheikh Mat Tidiane ak Maolana Cheikh mi nga xam ne dundam gépp nee moom la ko jox serviteur la ku jàngi la ci génn réew mi jàngi nekk ci biir réew mi tamit lépp mu am yëpp mu investir ko fii ci réew mi di jëflanteeg jaamu yàlla yi ci xar baax ak rastaar Abdou Aziz ñu bàyyi la nga nuyoo mbokk Ndanane TV alhamdulilah alhamdulilahi mm-hmm. wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah mm-hmm. alhamdulilahi la si nastafa mbokk mi ñu ngi lay nuyu Cheikh Baba di la jaare mm. di mm. nuyu mboolem waa Kër Ndaanaan TV di leen gërëm di sant bu baax invitation bi di nuyu suñu benn kilifa bu mag. Mm. Euh, Cheikh Mouhamadou Youssoufa Niang ci ba ci kër googu di borom xam-xam di nuyu sëriñam Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé di jaale suma sëriñ Cheikh Mourabi si Ahmed Ba. macha allah léegi ñu ngi siy waxtaan nga xam ne. Mm-hmm. man bi mu génne àdduna ba léegi dama jaaxle. dëgg la. am ay naqar yu xol yu ma métti mhm. ndax damaa ñàkk koo xamante ni mënuma ko am mhm. ki tax nga xam yàlla waaw kooku doo ko fàtte déedéet maa ngi koy jaale waa adduna yëpp di wax na xam-xam dem na waaw waaw xat xaaba na borom xam-xam ku ku kawe dem na ku kawe dem na macha allah ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm te yéegal ko amiin yaa rabbal alamin amiin amiin macha allah macha allah Abdoul Aziz Abdoul Aziz Ndiaye Ndiaye la sant mais li mu gën a sopp gën ko bëgg mooy ñu koy wax Abdoul Aziz mu sëñ maa yi Seydina Aline Cissé nga xam ne tey jii mooy xalifatul xam fële ci Medina Baye Kaolack nga xam ne nii tey mooy léppam mooy buntam ci Maolana naa Ibrahim moo ko yar moo ko jàngal moo ko def lii nga xam ne tey moom la doon muy mu xaddam ci Maolana Si Ibrahim moom mu ngi nekk nag fii à Dakar di jaayante jaamu yàlla yi foo mën a nekk fii à travers la monde di jëflanteeg ñoom ci wàllu ñaan ak faj di jëflanteeg ñoom ci wàllu jàng ak njàngale waaye tey nag bi biñ koy gën di jël mooy dañ ko bëgg a laaj sëriñ bi Abdoul Aziz sa diggante ak faydu ak baañes mm. kañ la taal faydu mm. sooñu si dikkeel ci lan la mm. alhamdulilah <clears throat> bàyyi radiyallaahu moom ñëpp xam nañ ne mbëggeelam yonent yàlla muhammadin yàlla alayhi wa sallam mm-hmm. moo tax dëgg-dëgg képp koo xam ne taalibam nga mm-hmm. li nga war njëkk a def mooy jàng mbindu sëriñ bi ràññee ko mm-hmm. ndax relation bi mu am ak seydina rasulillah nga baal tuuti ma ñëw ci ñu ñëw ci faydu Mm-hmm. ndax daf na bulixtu bi hubil Moustapha. xat mil Ahmada. abil kawni wal axlaaqi <coughs> farxan wa farxan wa maxtida. mu ne yàlla nottoof na ma man bëgg Seydina Rasulillah. Uh-huh. loolu la njëkk a wax. waaw yàlla nattoo na ma bëgg yonent bi. alayhi salaatu salaam. mu ne ki nga xam ne moo tëj nëbbu wax xat mil Ahmada mooy ki nga xamante ni moom la yàlla mujjee yéen mu nekk xaatimul anbiyaa wa imaamul mu ne kooku mooy bàyyi kaw ni mm-hmm. abil kawni wal axlaaqi. Mm-hmm. li tax mu nekk ñu ñëpp xam nañ ne. Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa moom mooy bàyyi kaw ni bi mhm. ndax wax na ne awalu shay'in xalaqa mina nuuri wa min nuuri xalaqa kulli shay'in mhm. mu ne li yàlla njëkk bind sama leer la ci sama leer la yàlla amalee lépp te wax na ne innamaa bu'istu mhm. li utammima makaarimal axlaaq yàlla def ma yónni ngir ma ñëw mottali jukko yu kawe jukko yu kawe yi alxuraan indi dalil bu baax wax ne innaka la'alaa xuluqin aziim kon jukko ko taggee kooku la bàyyi di tagg naan ko ataani hawaawu xabla an aarifa al awa su liitu bi niiraan istiyaaxi ahmada ndeysaan ndeysaan mu ne dikkal na ma bëggee la yonent yàlla muhammad salaay salaam mm-hmm. te nee na boobu xamaguma bànneex allah fu kenn xamul la ataani hawaaw boobu moom mu ngi wax ne boobu mu ci saatu waaw saatu mu ngi ci jëmm yàlla ci asal la wax ne ataani hawaaw dikkal na ma bànneexu bëggeel la seydina rasulillah te boobu mu ne man xamaguma bànneex xabla an aarifa njëkk may xam bànneex xabi an arifa la waa njëkk man may xam bànneex mu ne su litu bu ñeex daan istiyaax yi maam lakkeef na ma safari su bëggal googu axmada yaa ngi dégg mu ne alixtu aju naa bii ci moom kon léppam joxoon na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lépp Baay Ñas moom la te boobu dara amul ci moom dara amul yëgul dara nekkul di nagara déggoo mu ne alixtu bi wa naasu bi jinnatil karaa te boobu mu nit ñaa ngi ci nelaw gu métti te boobu sax naa si amagul ndax na ñetti naas yi ñoo am bérébi naas yi maliki naas yi naas moo tax mun xal yoxtu bii wa naas bi jinnatil kara tama taxatu minoo daara hmm. is kunta mufrida ndeysaan ndeysaan ñes waaw mun a bànneexu naa si moom si jamono boobu hmm. te mun a boobu man kese maa fa nekkoon kon bëggee bëggeelam ci moom dafa dafa dafa yàgg ku nekk nag am nga mbëggeel waaw waaye bàyyi ñu ni mu mel ci Seydina Rasulillah waaw li mu mel moom li mu jaayanteeg moom li mu hmm. def ci moom Cheikh Baba kenn mënu koo wax. te moom sax nee na gàcc la ci jaam bu jóg ne. Hmm? day day concurrence ak moom bëgg bëgg bëgg yónnent yàlla. la moom mu ne nee na yaa ngi wut lu mën la. waaw nee na yaa parce que wax na sax su jëm tu fi asa samaani. mooy nit ñaa ngi jéem a rawanteeg man ci jamono bi. waaw waaye man nag aji aji nekk laa ci fiir. Hmm. inni li fi xiirati mi man yoromu Muhammada. ku ku nekk laa ci fiir. Hmm. damaa fiir lool. ci ki nga xamante ne mu ngi sàkku ne dafa bëgg. yonent Yàlla Muhammadin salaa salaam dafa fiir ci moom waaw maam bàyyi kon nanguwul nanguwul kenn tollale boppam bëggeelam ak yoon bi xalaatul loolu moo tax léppam moom la mag ñi mi mag ñi mu yar ñu xam ko mm-hmm. Braham Diop nettali na sax moom dama na ba ci ba ci Baay Ñas biir tawaaf kaaba gi mm-hmm. da ngay gis ne kii salaat faati rek lay jàng ndax bëggeel ngir bëggee ngir bëggee gi mu amoon ci moom salaa salaam waaye nag li ma gën a marqué ci mbëggeel googu mm-hmm. Baay dafa wax ne wax na ne man su ma jubluwaay ci xeetu Seydina Rasulillah mooy omar leen jëmee leen ci pay bi yàlla bi wa umatun qad an usuqa ila hadrati bari rahimi ilahina incha allah te loolu ci lañ ci ñëw sëriñ bi euh, danañ ci ñëw loolu moo la ñu wooyee faydu pour wammat jaamu yàlla yi yóbbu leen ci pays nation di jabaroot malakoon yooyu danañ ci danañ ci dikk bu leen fàtte ne yéen a ngi seen premier numéro bii di lasraar tey ñu dalal euh, muxadamu Sebrahim dalal boroom xam-xam dalal ko yàlla may basira ak baatin muy ki nga xam ne moo nekk Abdoul Aziz Ndiaye di muxadam ci Mawlana Sebrahim waaye nag di soppe bu dëggu di taalibe bu dëggu si sëñ Maay Aline Cissé tey moom lu war a am ak moom waxtaan wu rëy gis ngeen tey ni mu faram-fàccee mbëggeelu sebraayam jëm ci yonent bi alay salaatu wasalaam noonu tamit la taxawalee moom sebraayam faydu faydu baay mu ko taxawal ci kañ ak lu sabab dikkam ak wooteem ci faydu te naari aw say katakole ki jarme maanaam mu doon woote boo xam ne ni yemalu ko ci benn xeet yemalu ko ci benn nation waaye kenn ku mënta nekk rek maa ngi nga ñëw ci faydu bi pour lal pour ma xaama aarifina billaay xam nga faydu bi nag hmm. histoire bu yaatu la waaye dinañ ci ñëw ak euh, gëstu yuñ ci def hmm. nga xam ne góor yàlla yu jiitu woon bàyyi hmm. yàgg nañ di ko xencu waaye yàlla dafa dogal na ci Mawlana Cheikh Ibrahima la feeñ kooku yàlla moo ko def yàlla moo yàlla mooy xool li muy may jàmbi may na ko faydu fay ci moom dafa may Seydina Rasulullah sharia ci biir sharia tarixa génn ci Cheikh Tidiane indi tarixa bàyyi ñëw indi faydu ñetti masaayir rek moo feeñ Mm-hmm. masaru sifa ismu saat da gis ne kon Baye Niass faydoom bi li jiitu muy ñëw la la ko yàlla jagle ndeysaan ndeysaan moo tax ifaada ah, ifaadatul ahmadiya moom biral na ko mm. wax na ne taati faydatun ala ashaabi hatta yedexool naata fi tariqat naa afwajan afwajan mm. mu ne faydu dana feeñ kenn ci samay saaba moom Cheikh Tidiane moo wax loolu mm-hmm. waaye mun gis kooku bu ñëwee nit ñi dañuy dugg ci yoonam Mm-hmm. ci ci yoonu tarixa tijaan jëm fekk ji maa ngi di ñëw ci yo bëgg ñu ñëpp ñuy daw di ñëw ndeysaan mu ne kuréel par kuréel ndeysaan kuréel par kuréel waaw moo tax mu ne taati xasi fayda wa naasu ma wa naasu fi xaayate maa yokkoon xali min di xew si di ndeysaan waaw wax na it ne jamono boobu nga xamante ni fayda bi day feeñ mm-hmm. mu ne nit ñi dañuy nekk si ay tat tat ak jafe-jafe yu méttee métti ci la ci la faydu di dikk. waaw te boobu mu ngi xew 1929 euh, la bàyyi woote faydu. waaw tombe crise li mm. nga xamante ni ci cause euh, yi ci cause nga xamante ni asum iqtisaad di la ko arab di wax. Mm. maanaam at mi at mi bàyyi wootee faydu. Mm. at mu jafe la woon. métti mu métti la woon. ñi yar ñu xam faydu. naanu ndoro ci moom ñi ci njëkk a naan. wax nañ ne boobu tartar yu métti moo am. incha allah sëriñ bi di jaayanteeg ñoom. parce que ba yar leen defar seen ruuy yi defar seen xol yi ba ñoo ñëpp ñu tegu ci yoon. dem na ba si kanam mu am na ay ndaw. Mhm. yoo xamante ni ñoom ñëpp tey fàtte nañ bànneexu bakkan yi. wax na ba si kanam su ma ne sama taaliba noonu lay mel kenn ko mënut noonu bokkoo ci. fi indi naa si xaaran subaana fi indi naa subaana si xaaran. Mhm. xanu si taama saabaati. am na ay ndaw yoo xamante ni. Mhm. ñoom ñoom ñëpp dañuy. dëgg-dëgg mel ni ñu fàtte bànneexu bakkan yi ngir li mos ci yàlla waaw li ñu nàmpatal seen duróo gi ci yàlla li bàyyi def ci ñoom mm-hmm. dem nañ ba kuñ ci wax dama seeti sa jabar sax doo def ndax ndax la ngay yëg ci ngir li ngay yëg yaakaar nga dem yaakaar nga dem sax boo demee ñëw fekk gaa yi raw la ci yàlla waaw ndeysaan foofu la taalibe tolloon ak moom ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan macha allah gis ngeen ko tey sëriñ bi waxtaan bi yaakaar naa ne neex na ñu ngi leen di wax ne ngeen wéy di abone di wéy di ànd ak seen programme bi nga xam ne moo nekk seen télévision di kër euh, Ndaanaan TV hmm. tey seen émission bii di Lassar dalal borom xam-xam gis ngeen ko li muy taataan ci xolu jaam yi bëgg gëm gis ngeen li muy sotti ci ruu yi nga xam ne ni yàlla moo ne ci ñoom yonent bi moo nekk ci ñoom Cheikh Ahmed moo ne ci ñoom mais Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo nekk ci ñoom gis ngeen tey li mu leen di dagaanal gis ngeen fi mu tàmbalee tàmbalee ci bëgg gi bàyyi ak bëgg yonent yàlla Muhammad mais bàyyi ak seex Ahmed Tidiane appart bi fay du dikkee ndax bàyyi moom ak Seexu Tijaan danga nga daan dégg woykat bi naan nuróo la ak moom na mbir mi doy na waar waaye bu gay na na tëll rab yëpp yëngoo bàyyi ak Seex ma tey boo ci dikk doon ci faram-fàcc lan nga ñu ci wax. Baye mbëggeelam ci Cheikh Tidiane dafa yaatu ndax Baye Niass radiyallaahu anhu wax na ne Cheikh lépp lum am Cheikh Tidiane tam may na ko ko. Mhm. moo tax wax na ci benn si euh, jawa si jaamiyoo jawaamiyoo. Mhm. mu ne muy wax foofu karaama yi nga xam ne Baye def na ko ak Cheikh Tidiane mu ne busuraaya. xastal mhm. la si xataa sa madara ko imaamu Tidiane surtout am di ko. mu ngi bëggal di ñu wax ne Cheikh Tidiane dafa bàyyi woon benn yet. Mhm. fi doon na Cheikh Tidiane rek laa lay wax man. Mhm. dafa bàyyi woon benn yet boo xam ne yet bi góor yàlla yëpp dañ daan dem di ko xeeñju ci. kare bi bàyyi demee ku ne dem na jàkkaarloo néeg boobu pour wir de salaat fatiha pour jot mbóot mi nga xam moo nekk ci biir néeg boobu. Mhm. waaye boobu yàlla def na Cheikh Tidiane moom mbiram bàyyi la ko jagleel. bi mu ñëwee dafay bëggal nañu na maa ngi bëggal di wax ne jëfewoon na trop. pour ma jël ci liñ ma bàyyi fii mm. mu ne busuraay yi xostalo si xataan sa madara kaw xatal imaamu tijaani surtout am ni kaw mu ne yet boobu mujj naa ko moom tey naa ko sama loxo jot na ma xam jot na ma xam bi loolu nag déggin bu ci ku nekk ak déggin bu ci am ku ci nekk gis-gis waaye mbëggeelam ci moom lu yaatu la bàyyi kadob seexu tijaan mooy Baay Ñas kadob seexu mooy Baay allah ci naka ci naka maanaam ci li ngay gis faydu tàkkee ko ci yoon ah. tey te te bëri te bëri te bëri ay mu xadamam yu yu indiwul faydu yu indiwul faydu te moom baay mu indi faydu ba ci baayam maa la jib laay ñes indiwul faydu indiwul faydu ba ci mag nga xam ne bëgg nañ yàlla lool ni waaw waaw sëriñ Baye jaayante nañ sëriñ Baye ñes maam Khalifa Niass maam Khalifa. laaj ma laaj moom seen waaw ñu baax ñooñu. nga xam ne nga xamante ne ay afis lañ. ay or lañu ñoom ay mhm. urus lañu. waaw ci biir Saalum. waaw di ko wër. yàlla te tëbb ko may ko mbëggeel gi mu ko may ci Seexu Tijaan nag maam Xalifa Ñas ku bëggoon Seexu Tijaan la amoon na ci ay cër moom loolu yëpp xam nañ ko waaye Baye leneen la ci seen biir man damay faral di wax ne Baye maanaam kadook waa ñeseen kadoo bi ñu am mooy Baye Ñas te ku xam ñeseen rek adduna bi yëpp mm-hmm. foo dem wan a fotoom ñu xam ko mm-hmm. moom moo tax ak li ko yàlla may ndax waykat ah, bi na moo tax waykat bi ko siggil nga gars sant ñes mm-hmm. ndax toolu diine yaa ko ñag ba noonu diine xëy na mes dëgg la loolu wér mu ne ma baa ñes yow sigil nga gaaya sant ñes mm. te toolu diine yaa ko ñag mm. ba noonu diine xëy na mes a ah, sëriñ bi c'est lu wér nga wax mm-hmm. ngay gis na mbëggeel googu moo ko may ba tey faytu bi ba yóbbu na ko fu ne tarixa dem na fu ne mm-hmm. Cheikh Mahi Cissé absala wara gis nga li muy def yóbbu na tarixa ba Singapour waaw ñaa ngi fay laasim di wasifa mm-hmm. foo dem ci àdduna bi ñu ngi ñu ngi dagaan mbiru bàyyi lépp gis nga ko lépp leer. Mhm. yàlla may na ko tamit lenn loo xam ne lu jafe ci waliw yàlla yi mooy dangay ñëw ci xadaraam. Mhm. gis fa ay xeet yu bari nit ñoo xam dañoo fasantu ko. sëriñ bi loolu loolu loolu ñu taxaw ci pour ñu xamul loolu lu ko indi ci Maolana Cheikh Ibrahim ay tukkee mu ko indi wala faydu bi moo am traversé bu demee noonu. wala wooteem moo toll foofu walla lal moo sabab. xeet yoo xam ne parce que boo xoolee comme le cas Nigéria xeet ya fa daje woon dañ dañoo bajante woon ba dañ daan reyante di lekkante ndax xeetu majal mm. aw sa Yoruba ay katakole mm. ki jarme mm. mais ngi ñu gis léegi Cheikh Ibrahima boole leen ci benn malaan wasifa ci benn buum yàlla gi ñuy tuddantey doom di mayantey jabar di demlante ka dikkalante bokk ci faydu nga dem ci mel ni Europe Asie ñëpp bokk ci benn buum gi muy maarifatu billah maanaam maarifa boobu Cheikh Ibrahima ci ginnaaw bi mu ko indee dafa jékki-jékki rek xaal moo ko dikkal na ko war nga koo tas ci àddina wala moom dafa doon loo xam ne gëm na ne xam yàlla gi àddina war nga képp dañ ci war a xam nga nit ki xam nga nit moom lu ne ci moom rek dëgg la te nges mbiram ak amri juddu mbiram dëgg la wala sa asal mbiram du neen mhm. moo tax bi faydu bi nekkee ci moom xam naa temps bi duñu ko may mais bi faydu bi nekkee ci moom mhm. bi mu demee ba yëg na ni war na génn di koo génne maanaa moom mbir mi njëkkut koo génne biti réew mhm. fii la ko njëkk a taalee mhm. bul fàtte na kër baayam la toog woote ma xaama bi mu métti loolu wéy na ci saari man wasal xawaan yi saari man waaw waaw mooy wéy na ci wax yu bëri bëri gàddaay gi waaw gàddaay gi leew na jëm Medina jëm mhm. loolu mais wax na ne lu ne tere na ko taalibe yi bàyyi leen lii moytu leen jong ma yi moytu leen nangam ak nangam mais li waral faydu bi dëgg mooy cër bi ko yàlla jox la ca ësal ndax wax na ne wa man yuhibbuni wa man yaraani mhm. fi jannatil xuldi bila buxtaani is anna ni xalifatu tijaani muhibbatan min ahmad alxadanaani mu ne ku ma bëgg ku ma gis ñoom ñëpp dugg nañ àjjana ci benn werante waaw man bañes man mhm. mu ne ndax man may xalifa tijaan te may googu mu ngi jógee ci ahmadam xaddanaan kon moom may gi njëkk Cheikh Tidiane di ko may faydu fekk na seydina sallallahu alayhi wa sallam may ko ko bu léegi nag comme ça xeet yi dajaloo ci moom nga xamante dañoo nekkoon Nigéria. jaar-jaar bi gudd na. taarix bi yaatu na. Mm-hmm. waaye li ñu ciy tënk mooy dama lay wax ne la yàlla mbiram dëgg la. Mm-hmm. si moo bi xam hablillahi jamian wala tafaraqu boo gisee nii ñëpp. Mm-hmm. àndandoo di bokk di wasifa di bokk di demante demante xew. te ñoom ñëpp démb ñu nekkoon ay noon di xeex seen biir. bàyyi ñëw boole leen ñu doon benn loolu mooy aay bu wax ne. na ngeen ngayu ci bu muy yàlla ki te bu leen tàqali ko waxtasimu bi hablillahi jamian mhm. wala tafarraqu waskuru bi nihmatillah mhm. iskuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum tabarakallah loolu yàlla rek moo ko mën yàlla mooy fekk lu kenn wax ne lii mënul am mhm. mu màng mbir yooyu am incha allah incha macha allah gis ngeen ko euh, waxtaan bi neex na neex goo xamante ne nii sëriñ bi bu tàmbalee di wax day neex ba doo ko bëgg sax dagg ndax euh, nee naa leen tey ki ñu invité mooy Abdoul Aziz Ndiaye di muxadam ci Cheikh Ibrahim di borom mi baatin di borom mi may di borom mi xarbaax tey moom lañ dalal ci seen première émission bii di euh, lasrar tey nag sëriñ bi dañuy jëm ci phase B bi parce que yaakaar naa ne faydu buñ ko doon waxtaanee du jeex mm. fañ koy jëlee Euh, du fa jeex fañ koy sotti du fa fees mm. waaye dafa am loo xam ne nii maanaam àddina bi dañ koo soxla ci yow mm. te mu doon karaama gu rëy rëy rëy sëriñ bi ci yow mm. muy wàllu ñaan yàlla wàllu lasaraar wàllu lasaraar sëriñ bi fu nekk ay téléphone dañ fay jóge ko soxla sëriñ bi ba ca tukki yi ngay def ci Afrique lépp li muy wone mooy da ngay dem di faj fii di faj fa tamit di faj ay nit ñoo xam ne nii dañoo faslanti ko ay xeet yu faslanti ko mm-hmm. te loolu bokk na ci li gën a tax ñu dalalaat en tant que mm-hmm. après ak sa kasketu mu xadam Cheikh Ibrahim mm-hmm. mais li ëpp doole parce que jamono bi dañoo toll ci jamono yi nit ñi tëju dañoo toll ci nit ñi seen bopp tëju seen wërsëg tëju dañoo toll ci jamono yi feebar nit ñee ngi am ay gàllankoor yoo xam ne appareil sax mënu leen a gis nit ñee ngi yàqante sëriñ bi tey Abdoul Aziz Ndiaye nekk nit koo xam ne ni ci wàllu ñaan yàlla ak wàllu lasaar wàllu kurus yàlla may la ci kéemtaan goo xam ne nii Abdoulaye Sy loolu donn la wala loo jànge la wala loo xam ne nii njagleelu suñu borom la balaa ñoo ñëw ci ci xeet yi may faj mm, dëgg la xam nga lasaraar dañ cee judd mm-hmm. ñun wutee ñi ak ñi dañoo wutee ak ñi nga xamante ni dañuy xëy rek dugg ci mm-hmm. maanaam ñun mariirantoo duggaluñu ci macha allah suñu maam ba fii suñu maam dañ koo canee kaamil alquran macha allah ñu juddu ci alquran tey boo ñëwee sama baay def na Dakar ñeent fukki ak juróom yoo xam na lasaraar ñaan yàlla mooy mbiram. dëgg la amul benn quartier du Grand Dakar du Pikine du Yoff fu mu liggéey tur yàlla dafa liggéey tur yàlla ba rawatina Dakar nangul ko. macha allah émission bi mu njëkk a def bii la. te loolu sax ñun ñoo ko ñun ñoo ko sàkk. waaw ay ay ay ay ay ay ay weer a ngi. ñu sàkku di daje ak yow. di sàkku di waxtaan ak yow di sàkku di ñëw di waxtaan ak sawaa kabine pour ñu may ñu sëriñ bi naka ñi ñu jëriñu ci moom ndax naam mu ngi faj naam mu ngi sampi daara sampi internat mais nag juste xam-xamu lasraar bi dañ ko soxla ci yow ba yàlla dogal nga nangul ñu ko tey ñu di la ci jaajëfal di la ci ndokkeel sëriñ bi waaye sëriñ bi sa wàllu ñaan yàlla. fi mu ne lii ma fi mu ne lii ma génn tale nii sax. parce mm-hmm. que Baye Niass dana métti sama waajur bu góor. dëgg la parce que liñ ñu lim ñu yaree mooy xam-xam. waaw daf ñu wax ne nit ko am lu wér. Mm-hmm. soxla woon nit yi jaay la. mais lasaraar dinañ ci wax mhm. ndax àdduna dafa toll foo xam ne mhm. faa nga wax li ngay liggéey suñ cabine mi ngi yoof waaw yoof waaw yéen ñi ko yéen ñi soxla sëriñ bi mu ngi yoof cabine am mi ngi yoof boo ñëwee ba si bureau d'or bi rek boo wootee ci numéro yi dinañ si incha allah numéro bi dinañ ko joxe pour ñu bind ko ci suuf écran bi incha allah comme ngeen xam ne tey sëriñ bi lañ dajal mhm. euh, muy Abdoul Aziz Ndiaye di muxadam ci euh, ki nga xam ne ni mooy Seyna Maay Cissé nekk taalibeem nekk soppeem nekk lii nga xamante ne moom moo nekk euh, bras droit am ci lépp loo xamante ne ni jëm na ci wàllu ñaan ak ñaan le sëriñ bi sa wàllu xeetu ñaan yàlla mm. depuis kañ nga tàmbalee ñaan yàlla maa ngi ko man nag damaa nekk ci sama ron bàyyi fukki at ak ñett yoo xam ne maa nekk ak moom gannaaw bu ma jógee daara mm-hmm. ma doon jàngee jaamal jaamal jaamal yi ñoo ma jàngal waaw la ca Saalum waaw jaar naa ko si sëñ Daara Bassirou Ndiaye jàngal na mhm. jaar naa fa bare bari mhm. ba léegi maa ngi jàng ba tey damay jël daar ba suba damay jël daar kulli yow man damay jàng damaa bokk si ndaw ñi nga xam ne Baye def ne fa inna mustaqbala kullul watani innama yatawaqqafu ala a la mhm. lakin ala sabani asabani musaqifina sawul axlaq Baye def ne am na ndaw mu ne dab mu ne gis naa ay réew gis na ay ndaw yu taxawaale jubluwaay ay réew mm-hmm. waaye mu ne waxuma ndaw ñëpp am ndaw ñoo xam ne dañoo ragal yàlla mm-hmm. ñoo xamante ni seen jukko jukko yu kawe la ndaw yu sant seen borom la mm-hmm. ndaw yoo xam ay ndaw yittewoo xam-xam la ñun ci ndaw yooyu lañ bëgg a bokk macha allah na ne amma sababu faqartun bila samra wala wala axlaaq faqartun bila samra mu dénk ñu mu ne ndaw lu amul xam-xam mu ngi mel ni garab gu dul ndaw lu amul xam-xam mu ngi mel ni garab gu dul meññ waaw garab goo xam ne kon képp ku ci yëngu. Mhm. laaj na nga xam xam pour jëriñ nit ñi. parce que client bu ñëw ci li muy jooy mooy dem naa fi dem naa fi gisuma dara. ndeysaan ñu ne ko ñun nag mucc nañ ci loolu. alhamdulilah ku ñëw ci ñun ak soxla boo mën a am. boo ñëwee ñu faj la. waaw lépp la ñuy def. macha allah lépp la ñuy def ba mu des loo xam dafa xaraam. lislaam da ko waaye nit ku nekk ay jafe-jafe. Mhm. ku tukki mhm. ku am ay ku bëgg li saxaar. dañ boo ñu jotee rek. Mhm. automatiquement dañ lay diggal ay ñaan yow yooyu defal sa bopp. pour génn ci xat-xat yi nga ne. waaw incha allahu rabbi gis nga tey ni mu ko waxee moo tax ñu dalal ko ndax nee naa leen kër gii di kër Ndanane TV. duñ fi dalal lu dul ko yàlla jox may duñ fi dalal lu dul ko yàlla jox ay maxaama te moom mii kat suñu borom da koo dimbalee mu nekk solution tey jii ci réew mi bokk ci borom xam-xami borom xalima yi borom alio yi guddi yi nga xam ne ni yaa xam foo mën a nee à travers le monde boo jàkkaaru jëmm ji nga xam ne ni mooy Abdou Aziz Ndiaye dina la saafaraal say xeetu faj Abdou Aziz Ndiaye dañoo ñëw sa kamit gis ngay faj ay xeetu jàngoro yu bëri te bokkul kañ nga ko tàmbalee di faj wala oubien yàgg na ak yow wala sa tukki yi nga daan tukki noonu dafa am ay ay ay xam-xam yoo ci yoo ci yoo yoo xam ne nii pour sa réew a tax nga di leen ci faj ci loolu parce que boo fa demee ba 24 heures sur 24 sëriñ bi sax pour nga gis ko day doon jafe-jafe ci nit ñi lay rang ci xeetu jàngoor yi ngeen di fajal sëriñ bi dëgg la ñun ñooy daw toujours euh, nit ñi dañu euh, ñun kon astafurlah ñun duñ daw nit yi mm-hmm. fu waaye mën a jógee ñëw ñu ngi fay gis ñu bari sax wallaay ñu su bari du ñu indi dara. dëgg la. waaye dañuy ñëw ñuy jëflanteeg ñoom. te yàlla tax lépp nag si barke suñu baay. macha allah ñun suñ buñ comme amee sept ans ba léegi. Mhm. def ñu yóbbu daara ñuy jàng. Mhm. ñaan yàlla maanaam suñ mbir la. Mhm. dañ koo téye suñu loxo. man jëkkaanu mu fenn dara. dëgg lépp Saalum laa ko. lépp lépp da ngaa ci kër gi fekk ci kër gi. kër laa fekk samay mag ak samay jur ñëpp loolu la ñuy def. man ñaan yàlla dama ci judd. li ma ci am nag yitte moo ma ko may. Mhm. tukki yi may def. Mhm. Afrique Mauritanie mu ne dama fay dem. Mhm. yitte yi may def yooyu yëpp sama li ma am kon yitte moo ma ko may. yitte waaw. comme ni nga bëggee noonu ngay tëbboo comme ni nga bëggee bi xadiramaatu bu tanaalu am daaw dañ fa xaw ma saaxaalu ku ni nga bëggee amee. te ñun na dañ koo teg ci sell ak sell. maanaam ku ñëw ci ñun jaaxle ñëw dañ la accueillir. dinañ la dalal. dinañ waxtaan ak yow dinañ xam kii sa soxla lan la ñuy mhm. def suñ kemtulaay kàttan mhm. yàlla ni nga xam ne mooy yor ndimbal mhm. ñaan yàlla mu dimbale la boppam macha allah parce moom ñun niñ mel ba nit ñi duñu ñëwal moom moo ñu roof sirru boobu moom yàlla nit ñi di dawee fu ne di ñëw ñëw di ku ñëw dañ la déglu mm-hmm. dañ waxtaan ak yow mm-hmm. danañ jàppalante ak yow mm-hmm. ñaan yàlla mu dimbale la macha allah macha allah gis ngeen ko Abdou Aziz gis ngeen ko nee naa leen yéen ñi nga xam ne da ngeen a am ay soxla ay feebar ak i problème moo xam ci biir réew mi moo xam bitim réew solution baa ngi nii toog muy Abdou Aziz Ndiaye ndax nee naa leen xeetu jàngoro ci mel ni bopp buy tëju dafa sonal nit ñi sëriñ bi ñi seen feebaru euh, sëy vie privée personnelle waxuma sax problème mu tëleeg problème mu jigéen ju taxaw ak problème mu li nga xam ne ni moo nekk ay ay jabet ak ay problème mu tension mais juste xeetu jàngoro yi ngay faj ci xeetu nit ku tëju mm-hmm. biddiw bu tëju wàllu lasaar mm-hmm. wàllu nit ki nga xam ne day déposer papier bëgg a tukki mm-hmm. mu dëgër wàllu nit ki nga xamante ne liggéeyam pour mu am liggéey jàng na ba am nay diplôme mais pour mu gañe dara man koo denc day doon lu jafe ñooñu dama gis da nga farataal say mbir lool jëmee ko ci ñoom lu sabab lu ni mel ak jigéen ñu taxaw ñi. xam nga jigéen ñi nga xam ne dañoo taxaw ci wàllu sax am borom kër. waaye xam nga damay njëkkee si ñu tukki sëñ Baba. Mhm. am ay problème parce que ñoom koo ci jot danaan la ñaanlu naa ci mbir nangam awama ci ndànkam ñoom dèjà gëmatuñu sëriñ. Mhm. waaye man yàlla bu may dimbale. damay ñaan yàlla képp koo xam ne sa aajo mënuma ko faj. yàlla bul yetti yàlla bul yetti si ma. macha allah kon jàpp naa ne ku woo da ko sa bopp koy def. waaw <laughs> kon ku ma mhm. ñëwee rek da gis mbir mi. mais tukki am parlo mu kayit wala nga nekk si biir réew mi bëgg a tukki mu jafe la mm-hmm. gis naa ndaw ñu bëri di jaar ci gaal gi mm-hmm. di jaar ci yoonu suuf bi lu ne la ñuy daj pour yegg mm-hmm. te boo yeggee doo am jàmm loolu yëpp lu ko waral mooy ñàkk jaar fi nga war a jaar ñaan du jeex aduwaawu si laawul muminin ñaan mooy ngàndaayu jullit kon képp koo xamante ni yaa ngi ne fii bitim réew am ay problème kayit wala liggéey bopp tëju fexeel jotoo fexeel dégganteeg na macha allah macha allah gis ngeen ko ni mu ko waxee képp koo xamante ne nii am nga problème mu am nga problème li nga xam ne mooy tëju sa bopp di métti yaa xam da nga am problème am doom yaa xam jigéen joo xamante ne da ngaa taxaw jigéen ji bëgg borom kër wala góor gu bëgg li nga xamante ne moo nekk soxna mm. góor gu liggéey soo ñëwee jàkkaaroog sang bi yaakaar naa ne dina ci saafante yow te dégg ngeen ni mu ko waxee nee na li muy def du xaalis la ci soxla mais ku xam dem cabinet am fële ca yoof di nga xam ne ni jëflanteeg jaamu yàlla yi képp ka tax a jóg ndax nit dafay dem te doo yor benn dërëm te boo ñibbi sax moo lay jox paas boo ñibbijee ngir lim ci bëgg mooy réew mi soxla. kilifa yi am doom yooyu. Mm-hmm. yàlla rek moo tax may wax am na ci koo xam ne jigéen la euh, wax dëgg yàlla ñëw na fa. Mm-hmm. bëgg am doom mm-hmm. sëy naa ko waa ji ñaar fukki at ak ñett. amuñ doom jigéen bu am 17 ans ñu may la. nga say ba am presque ay 30 ans yu teg. te mën a am doom te mën a am doom wala 40 ans yu teg. xam nga ne découragé woon nga découragé woon nga. bi mu ñëwee. yàlla dimbala ñu ñun li ma la wax rek. xam-xamu mag ñi leen yor. waaw. jëggaani wuñ dara. la amuñ wootuñ benn maxaama mhm. mais xam woy wayjur wu ñu gërëm waaw la ñuy doxee macha allah waaw ak sell sellal bi mu ñëwee mhm. wax ñu soxlaam dañ ko faj fi mu ne nii bi mu am doom ñaari doom la macha allah fii ci Sétéo. ndeysaan fii ci Sétéo la am. ñaari doom maa jógee foofu sama kër dem tuddi doom yi. ndeysaan ndeysaan dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen xam nga ni lii ah, loo xam ne nii ñun ñooy joxe ah, témoignage yu ñu mel. parce que nee naa la yàgg nañu dem cabinet am bu ñu demee ci saal bi ba ni ñuy yeggee ci ci ci gise bi ah, ay partenaire am dañuy def micro territoire di laaj xeetu doomu aadama yi fay dajee dañu bëgg ku leen faj ñii dañu amoon feebar dañoo taxawoon ñii dañoo nekkoon ñoo xam ne seen euh, puissance dafa wàññeeku ñii dañu nekkoon góor ñoo xamante ne tamit dañoo tëju ci tous les bords buñ bëggee liggéey sax day jafe si nit ñi dañuy xëy suba ba ngoon jot di ut liggéey duñu ko mën a am loolu loolu moo koy indi rab la wala biddiw bu tëju la wala nit ku amul baati la wala nit ku sangatul la wala nit ku amul ñaan la waaw xam nga ñàkk yitte tamit dafa tax ndey ndaw ñi seen baaba dañoo tayal parce que yàlla li am da koy jaay mayewu ko mhm. alxuraan jasaan jasaan yi mu tudd moo ëpp foofu xaataan xaataan yàlla tudd maanaam fi mu tudd may ak fi mu tudd fay fi mu tudd fay mu ëpp yàlla fay lay gën a def ko may mhm. te comme liggéey loo fay la mhm. ndaw ñi li ma dénk mooy mhm. ñi xam dañoo toog amuñu liggéey lu ñu yaakaar mu tas nañ fexe jo nañ fexe dégganteeg macha allah cabine bi yoof la ñëpp xam nañ ko bëgg di yaatal ndax li tax may tënk débat bi wax ñu bëgg ñu ba yegg si fa euh, lenn moo ko waral nit ñi dañoo yéeme. Mhm. ku wax ñu ne kii dóorkat la. Mhm, waaw askan nee na la ci yi. waaw waay waaye nag sëñ bi ma doguma la foofu doguma la parce que nit ñi xàmmee nañ ñi mën ak ñi mënul. dëgg la ndax wolof danaan euh, Dakar du um ku ko maccul. dëgg la ndax li sabab tey nga am invitation bii nii li sabab tey ñu tànn la ci biir euh, sëriñ si. Mhm. tànn la ne yow la ñu war a dalal parce que tey fi jamono toll kenn mënta nax kenn mhm. ndax kenn ku ñu nax rek ci yow la ñi daan xam mbaax ba tey ñu ngi koy xam ñi daan mën ba tey ñu ngi mën parce que wolof daf na bu fekkee lu la romb nga ne du waaja waaja dina la romb te du aajo du faju mhm. te ku dul laajte doo xam ku dul commencé doo yeggal ku dul wax bu wekkee lu lu la romb nga ne ndóbin la rek yaakaar naa ne njuum njuumte dina feeñ ci say activité te njuumte dina feeñ ci sa xeetu faju mm. ndax yàlla moo njëkk digal doomu aadama ne demal nga faju mm. ne ñaan yàlla ak ñaan fi lañ ko fekk mm. te doomu aadama bi gën a rëy wala jullit bi gën a rëy li mu soxla mooy ñaan yàlla naam nag sëriñ bi tey beneen phase bu ñu dugg mooy jamono yàqu na yàqu boo xam ne ni ku jóg ne sëriñ la jóg na da ngay def ñaan yàlla ku jóg na da ngay def lasaar mais ñi nga xam ne dañ ko doon seen i bàyyi seen i bàyyi doon ko seen i bàyyi mu doon ndonatal wolof nee na loo doon mu dëgër loolu moo sabab tey ñu invité koo xam ne ni dafa def résultat fii ci réew mi ak bitim réew yàgg faj ay nit ci lu xeetu jàngoro yu bëri yoo xam ne nii. gis nga dal muy Abdou Aziz Ndiaye. xam la réew ma ni Canada. Mm-hmm. xam nga doomu fa. Mm-hmm. mais ñii seetaan émission bi. Mm-hmm. samay nit ñoo fa dëgg la loolu yàlla may na ma ko dëgg la maa ngi ñoom ba 2016 dëgg la boobu métti woon na trop dëgg la am naa fa ay nit mm-hmm. Paris moom mm-hmm. samay cousin yi ñoo fa nekk samay mm-hmm. frère amul fu ñu amul nit ñoo xam dañ ci ñoo la fa teewal dëgg la dëgg la kon ñun loolu lañ xam sax ñun waaw ñun suñu liggéey dañ koo yaatal parce que dañ koy def ngir jaamu ci yàlla adduna du kër te bu leen wax na may yi fi nekkoon jeex nañ mm-hmm. déedéet may yaa fi bu leen wax ne sëriñ ci amatul déedéet laa taxoolu xasaabat arbaago kullu man saara dëgg la xalaa dër bi wastar bu leen wax ne kii déedéet xamul dara wala képp kuy dox ci yoon da nga yegg fi nga jëm bu leen découragé balaa ngaa yeb góor sax ñam ko njëkk waaw ba pare li ma leen dénk mooy ak foo mën a nekk di seetaan émission bi mm-hmm. maa ngi lay dénk dénk sama bopp mm-hmm. ngay faral di jóg di di ñaan jullit dafay sonn ci ñaan yàlla dafay nangoo toroxlu. Mm-hmm. dafay nangoo du jóg du ñaan yàlla. Mm-hmm. yàlla li mu yor yëpp da koy maye. Mm-hmm. te jaam bi la koy jox. yërmande bi yàlla du xool doomu aadama yi. kenn mënu ko dafa am yërmande ci ñun. kon buñ sàgganee suñ bopp. ndaw ñi li ma leen di dénk mooy sa baba jafe-jafe yu bari xat-xat nañ dem jaamu ji yàlla. mooy solution bi. nañ daw uti yàlla. fafiru ilallah. mooy solution bi. daw jëm ci yàlla rek mooy mooy solution bi. jamono toll na foo xamante ni bëgg-bëgg yi bëri na naali bëri na tappale gi bëri na yooyu yëpp nag addis waxoon nañ ko bu yàgg mm. waaye li lay dimbale mm. samaan bii ñu nekk may mm. nanga ko jaam yàlla macha allah kon dégg ngeen ko dégg ngeen solution bi ku ci nekkoon ci caaxaan lëndëm tappale mbiru adduna bàyyi ko nga ñëw ci yàlla dawal jëm ci yàlla afiru ilallah inni lakum nasirun mubin loolu alxuraan ci yàlla am na ndimbal waaw te yàlla sax mooy dimbal mi macha allah sëriñ bi bis nga ni ko waxee ñu ñëw ci actualité mooy sëriñ bi fan yi yaakaar naa dégg nga benn dëj bu ñuy wax moomi sekk di doom ci son sekk ñu ngi koy ñaanal yàlla mu xare ko àjjana di massawu jëkkëram muy Bougane Gueye Dany sëriñ bi mu am ay sëriñ si génnoon avant décès bi jox ci ay révélation ay comme ci mel ne ay ñoom maaraange sax et cetera et cetera doo fi toog te duñ na laaj ci loolu nga xam ne ni benn ñoom it dafa am lu leen suñu borom di won lu jiitu loolu di am wala ou naka la demee parce dafay bëri naam nag xam-xam moom dafa rëy te yaatu mais ñooñu ak capacité naam tudd tontur nag mais naka nga jàngatee tey moom mi ak dëjëm beeg li ci xew. waaw xam nga man damay faral di wax ne nit bu xamee dara du ko rast. du rastu mooy. rastu mooy. du rastu maanaam du làmbatu. du làmbatu du làmbatu boo xamee dara du làmbatu. du làmbatu nit bu xamee dara. te yàlla da bëgg a wax ne Mara xamul dara. Mara Niass non non du ma wax loolu. ku la xawma ko. mais mm-hmm. ku baax la. Mm-hmm. parce que mu ngi def liggéey bu rafet. yàlla mm-hmm. mu ngi koy jox ay résultats yal na ko yàlla dimbale. ñun suñu may. dafa weesu linkaar wala diingat. wala soxor jëm ci kenn. waaye dëgg-dëgg li may dénkaan mooy yàlla du jox mbiram. ku koy wuññi. yàlla du jox mbiram koo xam ne lu mu lu mu gis guddi bu xëyee wax ko. waaw nit yi li ñuy gis. ñii baatin ci xam ba ca lay dëkk. waaw kay ñii gis ñii ëpp ñuy wax. ñii noppee ko ñii noppee ko. Mhm. man xam naa loolu. Mhm. man nag dama tànn. Mhm. bokk si ñi nga xam ne. ku ma gis sa aajo faju waaw mu ngi sekk nag yal na ko yàlla yërëm. yàlla yàlla moo ñëw. amiin waaw. al laa yaati ilal baxtata. dee du ñëw si lu dul mbetteel. loolu man xam naa ko. du ma ci côté boobu mais xam naa ne. suñu yitteeloo ñu wax lu leer par rapport ak ñoom ñoom ñu wax mais sëriñ bi nag da nga da wax lu leer parce que ah, comme yàlla may na la may na la basiira ah. yow it nga toog ci plateau bu toll nii mm. sa xam-xam nag foog nga foog nga yéene ko doomu aadama yi mm. foog nga yéene ko jaam yàlla yi parce que yaakaar naa ne lii xew ci réew mi mm. yéen sëriñ ci daf leen a engagé sëriñ ci daf leen intéressé parce que kenn ku mënta nekk rek ak fépp foo mënta nekk da ngay am soxla jëme ko ci Abdou Aziz Ndiaye ndax sëriñ la man la mën a diggal war na la mën a ñaanal yàlla te tamit da ngeen di joxe seen contribué ci développement réew mi mm-hmm. moo tax nag seen xam-xam ak seen seen seen i gis-gis ci réew mi da ngeen koy joxe mm-hmm. loolu c'est très important moo sabab ñi di la laaj ci wàllu gis-gis instant bi ak dee yu mel noonu comme saaru dee yi moom yooyu noonu et cetera et cetera ak mm-hmm. artiste boobu mujjoon a dee la la la temps passe yaa ak euh, soxna si mujjoon a gaañu noonu ci T TFM saaru ndeey demee noonu nga xam ne ni d' accord ku ku lu naf seen saay xati mawte mais sëriñ bi est-ce du ci am lu ci laxasu waaw xam nga yu si bëri hmm. euh, dégg naa benn borom xam-xam saayar bu mag bu wax ne doomu aadama bu téeméeri nit dee quatre-vingt-dix-neuf yëpp cat moo leen rey man gëm naa ko hmm. te cat amul kundul jàpp hmm. waaye loolu beneen débat la maam beneen kii da bu fekkee ne nit ki dafa am feebar wala lu ko dal yàlla rey ko kooku moom diggante lu ko yàlla mooy rey arasaaku wal mawt mm-hmm. li annahuma bi yadi rahman mm-hmm. wërsëg ak dee mm-hmm. ci loxo yàlla la nekk nekku ci loxoy kenn moo tax man toujours damay wax ne gars yi dañu may laaj yi du ma ci bëgg xuus xuus parce que benn sama jaamu yàlla mayul ma ko nit yi may seetaan xamuñ ma ci wax muy dañ kalaam faati waxu caaxaan mbiru yooyu mbiru dee yàlla moo ko yàlla mooy faat mooy reye kaw ma benn sëriñ bu toog na gis naa deewu jàmbur du dëgg maanaam da wax ni sànni rek. dañuy wax waxu caaxaan la ñu ci bari ci ñoom am na ñu yàlla di mais nit dana toog gis dayam. waaw nitu yàlla benn jaamu yàlla bu bés nanga moo xam bés bu muy jógee mu gas lu baameel. Mhm. jëndi ay ay càngaayam. waaw denc woo doomam mu ñëw. ne ko su bu mbir mi xawee suul leen mu bërëb nangam. Mhm. gis naa ko. am na ku defar ko jënd ay càngaayam bés bu ñëw mu dem ñu fekk mu tëdd tëdd bu rafet ñu jël ko defar ko jëbal ko boromam. Mhm. xëy. si nañ ñu ne diw jógee na fi. Mhm. kooku waliwu yàlla bu yàlla gërëm la. Mhm. waaye ki toog di ut àdduna. Mhm. toog ba si kanam bëgg dara na xaaral ma wax nangam ne sameen nangam dara dana xew. yooyu man góob ma sëriñ coocu. am na nag ñu yàlla may. loolu am na ñu ko yàlla may. waaye man bokkuma ma ci ñi nga ñu gis lu yegg seegul. waaw man li may gis mooy kii jaaxle am ay jafe-jafe. ak ci loo mën a bokk mm. foo mën a jóge mm. boo ñëwee toog ak ñu def tout ba saafara sa soxla yi ci ñaan yàlla macha allah buñ ci loolu macha allah kon dégg ngeen ko sëriñ bi di ko waxee nee na leen kii toog di wax deeyu nit wala kii toog di wax li war a xew suba mm. nee na loolu dëgër fit rek waaye yàlla xam waaw du diine nee na dëgër fit la rek lépp lu ko wax macha allah parce ñuy def la taraag gi daanaka yàlla may nañu ci lu ñuy daw la moo xamal la ko tey baaba yàlla xam na ne luñ xam la si dañ juddu luñ mën a wax la waaye nag liñ suma tànk ci ma ko teg mooy njàngale man ñi mais sëriñ bi dogguma la ci loolu mais sëriñ si sëriñ si euh, Abdou Aziz sëriñ si dañoo bëri trop trop trop ci wàllu damay faj lii damay faj lii damay faj lii loolu soo toogee di ko gis en tant que yow mi nga xam ne ni yàlla may na gis nga fi jëloon benn hmm, concours benn concours daf ko jam ñaajo waaw boo ceeb cëpp boo sëriñ cëpp non non boo jógee foo mën a jógee avant ngay dugg ñun ne la jaaral fii teg fa ay borom xam-xam ñoo xam ne xam nañ tabian biddiw waaw xam euh, xaatim mustalas mustalas murabon mm-hmm. mu xamas mm-hmm. yooyu yëpp ñu xam ko mm-hmm. ñuy def ñuy def euh, examen sëriñ ci bëri dañ leen delloo ci waaw dañ ñibbiwaat dañ ñibbiwaat waaw parce que ñoom ñu si bëri mm. wallahi asim man gis naa koo xam ne la doon defar fu ma naan defaral téléphone waaw sama benn faral nee na ma gis na ko xam ne xaal la doon jaay. waaw jëkk <laughs> jékki-jékki dem ba sa kanam jënd ay lekkatam mais nit ñi ñoo feebar. waaw maanaam maladie feebaratu nit ñi ñoo. feebar nit ñi ñoo feebar. nit ñi ñoo feebar. léegi ñii gis hôpital ñu dara dalul leen. ñu mm-hmm. ci mbedd mi ñoo feebar. dëgg la bu jaaykatu xaal nga xamante ni ay sungub lay jënd di jox nit yi. waaw mais feebar boobu sëñ bi. kañ lay kañ lay faju moo tax ñuy jàpp ñuy raas génn doomu daara yi mm-hmm. buuxanteeg ñoom ci caaxaan yu ñu ne génne leen ci. waaw parce que métier bi. war a ñaan di ñaan ñi ragal yàlla di ñaan. di ragal yàlla di ñaan. Mm. parce que ki nga xam ne dafa judd ci mbir xam ko. Mm-hmm. di ci liggéey. Mm-hmm. yor ci këram. di ci taral ay jaam. di ci mm-hmm. joxe ay paasu gàmm. di ci def ay ngontu si kar. lépp lu baax lu ne ma ko ciy def. di si yor internat. di yor ay doomu jàmbur di leen layal. kooku warta yem ak ki nga xamante dafay xëy rek ne man sëriñ sëriñ du sant laa. dëgg la sëriñ laa ku ko wax rek am jaar jaar dafa jaar jaar am njàng. sëriñ am gëstu. sëriñ am ay critères am basiira nga ragal yàlla. jeex na ñeme ko muy sëriñ bi ñu ñëwaat comme temps beeg ñuy xoj. Mm-hmm. temps beeg waaja waaj xoj léegi li ci des ci temps bi bëreetul. sëriñ bi lan lañ mën a waxaat ci actualité mooy lan nga gisal Ousmane Sonko. Mm-hmm. ndax biñ ko téyee mu ngi bëgg yàgg ci kaso bi. Mm-hmm. ñetteel ba ci topp mooy gaa yi ngi naan am na cinq candidats wa amuñ cinq candidats. njeexintalu Ousmane Sonko jaar-jaaram. ba fii mu yegg si ak nguurug Sénégal. lan nga ci mën a wax sëriñ bi. mooy pexe yu ay jaam di def. pour faagaagal ko. Hmm. yàlla lànk. ah bon lànk ak yàlla nag la weesuwul ñu jël ko teg ko place mbiram di dox Ousmane. damay wax dafa am may. moom Ousmane Sonko waaw ndax ndax gars moom dañoo sonkorisé réew mi naa daal armel daal lañ demagul ñu ñëw ko Ousmane Sonko. gis nga lim am. Serigne ci bëri amuñu ko. moom Ousmane Sonko Ousmane Sonko koo xam ne boo ne damaa soxla léegi téeméeri mi. balaa 24 heures ñu dajaleel la ko. 300 millions balaa 24 heures mu dajee. Ah. loolu du ko ko may muy njub xam nga yàlla nekkul fenn. Hmm. yàlla ki ko ragal la xam. ku ko ragal jaam bi ko ragal te Ousmane. ku hmm. ragal yàlla la. waaw man du ma wax ci politique. waaw mais vérifié naa mbiram. waaw ba xam ne li ne ci moom. xaar ngay mbiram ci biddiwam. biddiwam sax soo ko xoolee da ngay xam ne Ousmane du gaay. Ah, ah. bokkuñ. ah déet sëriñ bi. maa de loo wax am na foo ko teg. Ousmane du ñoom te ñoom du ñu Ousmane. pourtant nag ñoom dañ koy doon doon lu de. dañ koy doon doon lu ñu bokkal. opposition bi sax même bokkal sax gis naa ñuy kii. Mm. Mm. mu sori. fi bi moom ba mu dugg ci kaso bi. ba pare mënuñoo demal seen bopp mënuñoo fexe ba dem. bu de. picc mënuñ koo dajale. man de man fan yee fan yee passé rek gis naa Khalifa Sall dem Tivaouane. Mm. bi daal moom ak ay oto. waaye gisuma ñetti nit. gis naa ko gis naa mu xadamu bàyyi bu baax sëtam bàyyi maamul ibnu maamul ñas waaw nga xam ne borom xam la jàmm ko yàlla dem naa fa dem na fa mu seeti ko mm-hmm. waaye gis nga yooyu ñuy tourné yëpp mm-hmm. ñoom dañoo bàyyi seen cëslaay gi fii mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko kon ñoom baatin la seen biir gis nga ñoom Amadou Ba ñii ngay gis nii yëpp mm-hmm. Macky Sall tànn ko ñoom ñëpp nañ ñaan yàlla nañ yéene Ousmane mu jóg maanaam jàmm Ousmane mooy jàmm mi waaw sëriñ bi mi nga xam ne topp nga biddiwam xam nga Ousmane fu mu féete ci wàllu baatin sëriñ bi est-ce que rafet nga njot Ousmane bokk ci ak euh, euh, yi ñu ñoom pexe yi ñuy def yëpp mooy génne nañ ko ci bu loolu yow wax naa ko rajee nañ ko wax naa ko nañ ko ci euh, liste électorale yi depuis 2019 tas nañ depuis mu ñàkk am jàmm c'est réew mu ñàkk jàmm ñu jiñ jiñ nañ ko téléphone lañ ko jiñ jàpp ko ne téléphone na sàcc yëpp pexe <laughs> woon na loolu waay kuñ jiñ viol dem ba ci kanam ñëw ba ci téléphone boo xamante ni da doon film ak diffamation Mame Mbaye Niang lu ne fi mu ne mbott sax bu feebaree ñu jiñ ko Ousmane Sonko waaye nag léegi yooyu yëpp fay na li xew mooy yegg si nañ si cappaandaw gi waaw gis nga trois mois yu ñu jëm mhm. dëkk bi dana mën ni màggal ko tas déet la wax léegi Ousmane Sonko ci baatin nga ko gis wala te da nga ko di ko wax non man du ma wax dara ci caaxaan damay xalaat trois mois ci kanam dëkk bi dana rëcc dana rëcc bu yow lool da ngay gis Ousmane Sonko phénomène bi muy génne Sonko ci boppam dana génn loo xam ne yow dalay bett non tàmbale na génne ay Birame Souleye ay Guy Marius Sagna ay El Malick am na cinq candidats yoo xam ne. yoo xamante ni na leen. waaw am nañu am na parrainage pour ñu waaw waaw. gis nga ñooñu ñu génn noonu. Mhm. man sax du ma ne du ñu waaja. Mhm. waaye Ousmane dana génne ñun foo xamante ni képp ki réew mi da nga xam ne kii liggéeykat la. te ah. réew mi nag ci loxoom mujj. dégg ngeen ko de ko dig Cheikh Abdoul Aziz dégg ngeen ko révélation yi mu joxe ci émission bi nga xam ne ni moo nekk Lassar mhm. nee na Ousmane Sonko dina génne lu bees tàq te 2024 réew mi dina tege ci loxo mais sëriñ bi loolu baatin la am na ñu koy ruumanaan ci suuf mais borom xam-xam bu toll ni yow su ko waxee dañ ciy prêter attention. xam nga man gis naa Ousmane Sonko 2021 buñ ko jiijee affaire u Adji yàlla wan ma ma gént mu nekk ci benn saal bilaay wal kitaab bi ma Sall ñëw génn ay génn dossier jox ko ci benn saal. Mm-hmm. Macky jóg mu toog loolu gis naa ko ñetti at moo ngi koy door a wax tey. sëriñ bi yaa ngi nekkoon fa am solo. Mm-hmm. muy nga ne gént nga mag mm. mm. loolu maa ko gént la 15 juillet 2021. le 15 juillet ah, lu wér la. ma tëdd maa ngi koy door a wax gént gi. Ah. def na yaakaar naa ñaari at ak lu topp. Ah. ma tëdd gént Macky sàll dox dugg ci Sonko dox dugg ci benn saal bu yaatu. Mm. ay nit a ngi toog. sol lu weex bi mu duggee ñoom ñëpp dañoo jóg ànd ak Macky Sall di ree mu ñëw mu jox ko loxo Macky jóg mu toog mu jox ko benn kayit ay kayit yu ay papier bu weex yu bëree bëri moom loolu man li ma gëm mm-hmm. mooy Ousmane Sonko bu duggul pare keneen ko fa dugg doo def la nit xam keneen mooy baaxoo mooy baaxoo moo maanaam moo gën ci réew mi sëriñ mel ni fi nga la. moo gën ci réew moo gën ci réew mi maanaam jub déedéet ñooñu ba tey waa xam nga loolu xam nga loolu guddeeg la dafa am ñoo xam Ousmane Sonko tër yi waaye du ñu benn Ousmane nii la mel ñoom naa la mel hmm. yàlla lim defal Ousmane defalu ko keneen nangu dogalu yàlla dafay noppal jàmm te Ousmane li mu am ñoom ñëpp ne naa la ba si journaliste yi état bi kii yeeg ñoom ñëpp ñuy wax Ousmane Sonko dallu Ousmane moo leen gën njub xam nga njub xam nga njub ak sell xam nga man du ma wax ñooñu parce que doomu daara taalibe dafa am ñoo xamante ni ci nga war di wax ñun xam-xam lañu war di wax ay may jàmbar man ma jàmbar xaw ma ko mm. mais dama ne ne ñoom Cheikh Yérim Seck ñoom ñoo ñëpp moom sax ñoo bokk sëriñ sa mm. Yérim sekk mais xam nga li am solo mooy nañ ñëw ci Ousmane Sonko ak li nga xamante ni moom la war a def après parce que ñii ngay gis ñu fexe ne ñoom gañe nañ sa waay tëdd na hôpital mu ci kaso bi feebar na ñu ngi koy garde ay akam yëpp xeñ nañ ko ko foog ne fu mu nekk nii gañe nañ daan nee la dans trois mois dëkk bi dana mën ni màggal gu tas ci ay programme novembre décembre janvier dëkk bi du saf dara nañ ñaan yàlla mu dem këram jàmm am ñu am jàmm yow gis nga pour man élection jaar yoon mooy bàyyi Ousmane Sonko. loolu am naa ci yaakaar ndax dama yaakaar ne euh, loolu mooy jàmmu Macky Sall dana am tàggatoo bu rafet mais dem bàyyi Ousmane Sonko ci kaso bi ak nii mu mel keneen kuy war a gouverner réew mi kooku ma nar am ay jafe-jafe. kooku nar ay jafe man gis-gis boobu la am. mais xam nga Macky que est-ce que dina ko xam nga Sonko moom yàlla moo ko defal loo xamante ni bu ne nit ñi jaar lañ fii ñu jaar fa fi may wax yow nii. biñ ko bàyyi woon tey moom nekkul candidat wér-gu-yaramam mayu ko ko képp ku ànd ak Ousmane Sonko comme jiital koo koy jëriñoon. avant waaw man loolu moo tax man opposition bi denk leen dénk mooy ñoom ñëpp nañ ñëw ànd ak Sonko ñu xool seen candidat lu jafe la nag. loolu de xanaa ñoom Khalifa Sall ñoom Khalifa Sall Déthié Fall non non Barthélemy mënta Barthélemy Barthélemy ak Sonko mënuñu àndati ak Khalifa ñooñu seen diggante Ousmane jeex na. lu tax ah, bi. añ bi ñor na lekk nañ ko nekk jël na wàll. dañoo waroo dañoo waroo dañoo waroo parce que Ousmane ni muy jàppee nit ñoom jàppee ñu ko Ousmane. dañ ko war daal dañ ko war. dañoo ba ci ci mbaam ñu ñu dogal yu bëree bari mhm. ay Ousmane lii muy dund ñoom ñëpp dinañ dund lu gën a métti loolu. gis képp ku ko yéene lii. Khalifa Sall gis nga ci yaakaar seet naa ko. Karim Wade ñoom ñëpp duñu laal dara. bu fekkee maanaam def nañ ay gàllankoor bu Ousmane Sonko bokk ci réew mi kim àndal kooku mun na gañe Guy Marius Sagna waaw Guy Marius Sagna xam nga juróomi candidat bu son ko tegee ne ku nekk na ànd ñii ñooy samay candidat juróomi candidat ñoom am na lu nas loo xam ne bu ñu demee ba yegg si cappaandaw ko dinañ leeral nit ñi fu ñu jëm loolu moo ci nekk. waaye daal eh, ay 3 mois daal wala 2 mois daal plus tard dinañ gis ci réew mi eh, lu garaaw. lu garaaw lu yéeme spectacle bu garaaw. sëriñ bi loolu ci loolu ci baatin nga ko gis. waaw loolu réew mi da def sa analyse nii rek. non non du analyse loolu maanaam gëstu yu ma def ci yi ñu dëgmal. Mhm. maanaam gëstu rek comme ça doomu aadama bu toog ne xaaral ma gëstu xool lii fan lay jëm si laa gis loolu. macha allah waaw ci nga gis ne daal ay deux mois daal trois mois ci kanam. te gisee wu ma ko Dakar. voilà maa ngi ko gisee ci àll bi ca Saloum. macha allah ca àllu Saloum fa ngay fa ngay ngay fa ngay duggee say xol yooyu. Mm. sëriñ bi ci wàllu làmb gis nañ bërki démb ba aada Fass daanoon ki nga xam ne moo nekk site Zos te loolu it joxe woon nga ci révélation mais ñu ngi dën laat ay yeneen i combat te yow sa digganteeg mbëri kenn du ko wax ndax lu ko toll ni Pikine Guédiawaye Parcelles ak Lansar yaakaar naa ne da nga faa bëri ay taalibe yoo xam ne dañ leen da nga leen di jàppal tànk lool sëriñ surtout Guédiawaye surtout maa Guédiawaye Guédiawaye moom dëgg yàlla mm-hmm. mbër yi fa nekk ñoom ñëpp samay samay samay samay samay nit lañ mhm. daanaka seen mbëri ndaw nag mhm. laa gën a ñoo ma yóbbu ci ñu mag ñi ñoo ma jaay foofu waaw indil ma ku nekk mhm. maa ngi leen ñoom ñëpp waaye gis nga diggante Modou Lo Ama Baldé wax dëgg yàlla làmb la joo xamante ni dana bett ñu bari ah ndax réew mi yëpp ñun Ama mooy suñu bër dañoo foog ne ñun ñëpp Ama mooy suñu mbër dañoo foog ne Ama day daan Modou Lo ba ci waxam noonu lay mel waaw waaye yàlla dafay dogal moom bu yeggee si fandoogo dana am gàcce ah déet waay. ah waaw sëriñ bi déet. amaa mooy suñu mbër. mooy suñu mbër parce que mooy mbër. patriote yi mooy mbër mooy mbër mu bëgg man ci patriote laa bokk nag. waaw waaye nga ne daal bu jour ba jotee di nga loxo dina dara génne. waaw ah! moom wax naa ko sax ku ma dem. waaye sëriñ bi loolu révélation la. loolu du yéeme la dana gis lu yéeme yéeme. Ama Baldé bu jour ba jotee Ama liggéey na. liggéey na am na doole sax nee na man bu teeloon a gis Modou Lo ah, du ñàkk ci combat bi 1000 francs wax na ko waaye loolu xëy na teg na ko fa wóor xam nga nag làmb dafay dem ba si cappaandoo ko mu soppeeku mais samaan bii ñu nekk nii mu Lo da ko gañe ci lu nekk ah! maanaam échec gi làmb ji dafa bari échec gi làmb ji kon daal yow jamono bii ne boo xoolee seen tabiyan ci biddu Modou moo def nii mun nañu dem ba mu soppeeku mais jamono bi Modou moo nekk ci kaw loolu moom ma xam maanaam bu suba doon làmb ji Modou Lo mooy daan bu doon tey tàkkusaan Modou Lo mën na ko gañe ak dóor yu métti ak dóor ah, maanaam du du dëkk ci jàppante ay xeex lay doon. ah waaye de moom moom yéen mais mais loolu nga yaakaar ne tegtal bi lu amaa war a def ñaan yàlla war a seet si la wala oubien la war a mën a def. waaw xam nga man nag euh, dama bàyyi ñaan ci làmb léegi. ah bon ah, bàyyi loolu waaye. bàyyi naa ñaan ci làmb depuis combat suma benn mbër du ma tudd turam. Hmm. ak benn waay si laa ko bàyyi. Hmm. maanaam ñun fi mu ne nii du ma la wax sànq rek dama ci ñëwaat suñu yitte mooy. dimbale nit ñi suñu itam mooy xir nit ñi ñu ñëw ci yàlla suñu itam mooy ñu góor góorgóorlu ba ndew ñëpp am jàmm. Mm-hmm. ndew ñëpp jot seen càkkuteef ci yoonu yàlla. sa diggante balaa ma tëj sa mbër mi nga xam ne sa diggante ak Lac de ñëpp xam nañ ne danga koy jàppal tubéy. Mm-hmm. moo Siteu tamit comme wax nga ne fii bu suba doon combat bi tay tay tay mm-hmm. Modou day daan Ama Baldé mais moom it. Siteu moom tam ak ak ak Lac de moom tam day xaar Lac de moom combat am lu may bàyyi bàyyi ñaan. mën naa ko bañ a jox dara mais danaa ko yéenee ndam danaa ko téyel kurus parce que nit ku baax la. Mm-hmm. te sama dafay ànd ak sama boy boo xam ne moo ma booleeg moom. Mm-hmm. kon dëgg yàlla damay ñaan yàlla yàlla may ko ndam. macha allah mais bi dafa taxawee ci côté am quatre vingt pour cent la Dakar. loo xam ne moom moo ko war a gañ. moo dëgg yàlla moom Siteu daal kon lu mu ci am ko dara. kon daal moom it bi bu doon. la Dakar mooy combat bi moom mooy gañe bu doon six mois sax mooy gañe moom. la dëggee daal mooy mooy gën ci taw am naa ci dégg ngeen wax ji révélation boo xamante ne la sëriñ bi moo ko joxee nee na combat bi nga xam ne moo nekk Modou Lo hmm. euh, Ama Baldé hmm. bu doon suba suba la Modou Lo dafay daal la dëggee ak Siteu tamit bu doon suba suba la ki nga xam ne ni moo nekk la dëggee day daan Siteu hmm. ah gis nga ko kon nañ bàyyi yàgg bàyyi yónni tamit li nga xam ne mooy yàgg sëriñ bi ko joxe te xam nga ne moom nee na lépp lu mu wax rek da koy teg ci xam-xam bu leer da koy teg ci listixaar bu leer mm. te gis na ne mm. nii mu ko waxee noonu lay demee mm. tey ñu amoon ci émission bii di lasrar kii di Abdou Aziz Ndiaye di borom xam-xam di mu xadmu Mawlana tey moom lañ amoon fii am moom ay laaj ak i tontu gis ngeen li fi taatal yëpp ci ay xeetu xam-xam di ñaan yàlla may ñu dégg ak topp sëriñ bi bu ñu la doon jox sa dernier kàddu la lay doon sant yàlla alhamdulilah di wax ne ñu ngi kontaan bu baax si invitation bi nga ñu defal di nuyu sama benn mu xadam bu baax Cheikh Youssoufa Niang nga xam ne daraam laa jokk mooy suma sëriñ moom muy nitu yàlla di bu baax dëkk ko cité góor gi di nuyu waa daraam yëpp di wax ne émission bi jàpp na ci ci dimbala ñu ci xam-xam ndax ñu ay taaliba yu jàng nañ waaye mbëggeel si suñu mbëggeel la ñaan mu wér di leen nuyu di nuyu mbooleem say liggéeykat mm-hmm. eh, waa kër gi di nuyu sama soxna mbooleem julit mm-hmm. salaam wa macha allah ñu ngi leen di jox leen di daje fii la doon am ci seen émission bu mag bii di lasrar di am seen seen bu mag bii di Kër Ndaanaan TV di leen ko dalalaat moom it parce leen xam-xamam adduna bi dañ koo soxla mm. ni ñu ko dalaat ci yeneen émission yoo xam ne nii ci wàllu diine lañu waxtaani mm. wàllu faydu mm. te du yàgg dara sax ndax kër gi lépp ñëpp la lu ne ku da caa nekk ba tax na kenn ku mënta nekk rek fépp foo mënta nekk tijjil nañ la suñu porte surtout émission bi yaa xam da ngay faj ci wàllu wàllu jéere ji yaa xam na ngay faj ci wàllu biddiw hmm. yaa xam na ngay faj ci wàllu garab wolof danañ la woo fii dalal la waxtaan ak yow wala ñu fekk ji waxtaan ak yow ci wàllum faj hmm. wàllum ñaan yàlla wàllum lasaar loolu moo sabab seen seen bu mag bi taxaw ci seen besoin hmm. pour taxaw leen ñu leen jox di daje beneen rendez-vous ci beneen invité ci seen émission bii di lasaar asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen yoon allah